إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله بك جلدي ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di seede ne moom dong mooy ki yeyoo ñu koy jaamu di ko ñaan mu julli ca suñu sang ba suñu yenente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam ak ña koy roy ba ila yawmi diin ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ngal la waay sax leen ci ba dee fekke leen ca gannaaw loolu mbokk julit suñu borom yàlla day yónni na yonent yu bare bari ñooñee mu tànn ci ay yonent lu tolloog ñaar fukk ak nangam netti lu ñu seeni histoire ci téere bu tedd bi di alquran ngir jullit ñi jël ko ay référence ci bépp jaar-jaar bu ñuy jàll rekk yàlla jaarale woon na fa ab yonent ak xeetam yonent yooyee suñu borom nee na mi ngi koy def ngir dalal xolu yonent yàlla muhammad waaye dalal it xolu jullit ñi ngiree ñu nekk di xalaat ca loole ca it histoire la yoo xam ni du ay théâtre du ay film réalité la yoo xam ni suñu mbokk doomu aadama ñoo ko dundoon ci kaw suuf ba seen temps jeexee yàlla yóbbu leen gannaaw ba ñu nit yàlla indi ñu jël natt yam leen tegoon teg ñu ko di xool ba xam ñu nit naka la ñuy jëfandikoo loolee di natt ya muy ndigal ya ak la nga xam ne moo ànd ak moom suñu borom teqalee ko ngiree mu nekk yërmaane ñeel ñu gëm mu bokk na xissa bi yàlla gën a tasaari ci téeréem bu tedd bi gën koo leeral muy xissa Muusa alayhi salaam ak bani Israil ak noonu yàlla bu màgg boobee nga xam ni moom mooy firawun mbokk jullit amoon na benn jamono lu toll ci ñetti junni at ci gannaaw la yonent yàlla Muusa doon dund bi muy dund mi ngi bokkoon ci bani Israil ñan ñooy bani Israil mooy sëti yonent yàlla Yanquba alayhi salaam ñooñu nga xam ne yàlla ci ñoom la bàyyi woon yeneen taga mboolem yonent bu yàlla yónni gannaaw yanquuba rek ci sëtu yanquuba la xanaa lu dul yonent bi mujj a ñëw muy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi gën a màgg ci bani israil nag muy muusa alayhi salaam jamono ji muy dund fekkoon na xeet boobu di bani israil nga xam ne ñoo gën ci kaw suuf yàlla nattu leen boole leen ak buur bu saay-saay mu ànd ak ay peuple am ak notable am ñu not bani Israil def leen ay jaam loolu nekk tiis boo xam ne tiis bu rëy la waaye gannaaw noonu ñu leen defee ay jaam it waa bani Israil bokk na lu ñu doon jàng seeni téere dana am doom bu juddoo ci ñoom mooy daaneel nguuru Firawna Firawna it ay boxaabaam ya koy seetal confirme loolu ne dana am xale buy nar a juddoo ci bani Israil mooy daaneel sa ngóor gi Firawna nag daal di kon décrété daa di ne ku fi jurati doom bu góor ci bani Israil rey leen ko loolee mbokk di natt bu rëy rëy koy doom bu jigéen ñu yóbbu ko mu nekk jaam ca kër yi ak chantier ya suñu borom yàlla tuddee ko balaa bu rëy balaa un min rabbikum azim loolu di la jàngal tontu yow ndawal julit léeg-léeg nga posé wu question ñun ñuy julit ñi ngi jaamu yàlla et pourtant la ëpp ci julit ñi ñi ngi dëkk dans le tiers monde ñi ngi dëkk dans la pauvreté yéeféer yi nekk seen en béew gi seen kéeféer gi ñoo yor alalu àdduna bi mbokk xamal ne àdduna suñu borom dañuy fi indiwul ngir ñu dëkk fi àdduna yàlla dañu fee indi ngir nattuñu ba ëllëgi ki si biir heure bu ñu dajee ca àllaaxira jullit ñooñu nekkoon ci coono bu leen yàlla dee yóbbu aljanna di leen yóbbu ak preuve te mooy ñii ñooy samay jaam ya nga xam ni ba ñuy dund ci kaw suuf gëmoon nañ ma topp ma coono bu nekk dal na leen ci loolu teewul ñu sax ca maa ngi leen di faye àjjana ji am maa ñu mbëru woon nag bànneexoo bànneexoo àdduna fàtte seen boroom suñu boroom am ci ñoom lay ba mu leen tabbale la nga xam ne mooy sawara kon bani israil a ngi noonu ñu leen di nattu nattu yu tar waaye ndax dogal bu yàlla dogal doomu aadama mën naa fexe ba mucc ca tontu la mooy déedéet bi yàlla na mi ay mbiram dafa bàyyi ba bi nga xamee ni nii ñi ngi def inspection pour xool bépp doom bu góor bu judd ñu rey ko mu daa di xamal yaayu yonent yàlla Muusa ne ko sa doom ji boo déggee inspection am na utal benn kees nga daaj ko ci biir kees gi nga sànni ko ci niil bi danaa ko delloo si ci yow ca it bu màggee danaa ko def ab yonent soxna soo si gëm ndigali yàlla ca loolu it nga la waay yow yaay bii ñëw bi ilaa yawmi diin gëmal sa borom jalla wa ala xam ne lu yàlla digle des fois def ko mën na nekk ci sa xel mu gàtt loo xam ne peut-être danger la peut-être xamoo waaye yàlla moom mooy aji xam lépp lu la yàlla digal soo ko defee résultat ba yiw rek lay doon looloo tax yàlla mujj na ko delloo sil doomam joojee non seulement kenn reyu ko waaye ñi ngi ko booleeg di ko fay salaire ci loolu ba màgg yàlla delloo si ko mu nekk yonent ci histoire Moussa boobu yàlla danañu ci nettali soxna Firawun mi nga xam ne ba ñu sànnee Moussa moo ko for daal di ñëw ci Firawna ne ko maa ngi lay ñaan kii buñ ko rey ndax taar ba mu àndaloon suñu borom nee na wa alqaytu alayka mahabbatan minni sànni naa ci yow cofeel boo xam ne ku la gis bëgg la loolee firawna ba mu ko nangulee loolu histoire ba gudd na ba Moussa dellu si wàcce nekk bi yonent soxna firawna boobu daa gëm Moussa alayhi salaam loolee naqaru firawna lool ba firawna da ko mujj dind daaj ko ci ay bant weddiloo ko yàlla soxna si ne du génn mukk ci diine yàlla ji firawna rey ko reyin bu ñaaw gannaaw ba mu nekkee li ñuy tudde première dame nekk soxna yu buur boo xam ne kenn contesté wul nguuram ci kaw suuf muy buur bi gënoon rëy ci kaw suuf mu nekk benn soxnaam waaye ngërëmal yàlla jalla wa ala gënal ko àdduna ak li ci biiram mu wax waxam ju siiw jooju nga xam ne bépp jigéen ak bépp góor war koo bàyyi xel ndax suñu borom moo ne misaal ñeen na leen ci soxna firawna mun na rabbi ibni li indaka baytan fi ljanna wa najjini min firawna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin et yàlla tabaxal ma kër ci aljanna te musal ma ci pexe firawna ak i notable am musal ma la pexe tooñkat yi pexe bi mooy lan mooy li ñuy def pour génne ma sama diine yàlla loolu yàlla buñ ci réussir te noonu la ko ko yàlla nangulee mbokk kon Moussa alayhi salaam ngi noonu firawna da doon bañ mu judd ah da doon bañ mu màgg suñu borom yàlla wëlbati ko indi ko ci kër firawna firawna jël ko yar ko comme doom ji mu jur loolee mbokkit di wane borom bi mooy faalu li ma yurid mooy def lu ko neex fa la Moussa màggee ba nekk ko majeur yàlla dogal bis mu génn gis ne ñenn ci notable firawna yi kenn ci notable firawna yi mi ngi agressé kenn ci waa bani israil kooku woo ko woo ko pour mu dimbali ko bi Moussa ñëwee dóor ko benn point rek waa ji daal di dee dee googee tax na ba nag Firawna ak notable am ne Moussa mii fokk ñu rey ko ca la dawee yàlla musal ko mu dem dëkk bu ñuy wax Madiana def fa fukki at gannaaw ba nammaat waa Égypte ba muy dellu si ci yoon bi ca la ko yàlla def yónent yónnee ko ci firawna mu ñëw ci firawna ne ko yàlla ma yónni ci yow firawna gën a mbëru daa di na ko ak njabara tax nga naan yàlla ma yónni ci yow dajalal leen ma njabaru égypte yi ñu dajale njabarkat yépp mu ne leen njabaral leen ma Muusa ñooñee def seeni pexe yépp suñu borom yàlla na Muusa sànnil sa yat bi bi Muusa sànne yat bi yat ba soppali ko jaan lekk mboolem njabar ga fa nekkoon ñooñee nga xam ne mooy njabarkat ya di magicien ya nga xam ne xamoon nañ njabar la cay nëbb ak la ca feeñ ñoo xam ne Muusa lii mu def di njabar ñoom ñépp ñu daal di jóg sujuut daal di nekk bis na tey gëm nañ yàlla Muusa Firawna jóg mer da ngeen di gëm ca du maa joxe ndigal danaa leen rey rey bi gën a bon ci rey yi danaa dagg seen loxo ndeyjoor dagg seen tànku càmmooñ daaj leen ci data tàndarma yi ngeen nekk di siit ci deret ba baa ngeen di dee ci dee ga gën a ñaaw waaye xoolal njabar yi lañ ko tontu ca mooy ay firawna ñun duñ la gën a le mukk ca diine yàlla ji ñu dikkal lu la neex ci ñun dogalal say dogal àdduna la yem ñun day gëm nañ yàlla jëree mu baal ñu suñuy bakkaar gëm nañ yàlla ci moom la ñuy dellu yàlla la muy maye ci àjjana mooy la nga xam ne mooy la gën a sax loolu it nga la waay yow ndawal julit sa diine ji prison bu mu tax nga dellu ci gannaaw menace de mort bu mu tax nga dellu ci gannaaw alal duñ lay proposé bu mu tax nga dellu ci gannaaw yow soxna si sëy bañ lay fase bu mu tax nga dellu ci gannaaw service bañ lay dàqe bu mu tax nga dellu sa gannaaw les priorités say priorité mooy sa diine booy dund dundal ak moom booy am coono àndal moom coono booy dëkk dëkkal ak moom booy gàddaay gàddaayal ak moom ca loolu la ñu suñu borom yàlla wax ñu rey leen ci benn bëccëg ñoom ñépp firaw na rey leen loolee bu ñu delloo ci sunna yonent bi alayhi salaam mi ngi ñuy nettali kenn ci jigéen koo xam ne ne it na soxna firaw na muñe woon ba firaw na rey ko noonu la muñe muy machita ki doon létt doomu firaw na keroog ba mu koy létt létt la nga xam ne nii mooy la mu ko doon létte wadd mu daa ji ne subhanallah sell ñeel na yàlla doomu firaw na ne ko ban yàlla ngay wax sama bàyyi mu ne ko déedéet sama yàlla di sa yàllay bàyyi xale bi ne bërit dem ci papaam ne ko kii de mi ngi jaamu beneen yàlla bu dul man bu dul bu dul yow mu daal di kay woo ba mu ko woowee na ko génnal ci diine mu bañ mu dajale ay doomam tàngal benn kaw diir ci dawlin di jël doomi soxna si di sànni ci biir soxna si di seetaan mu ne ko génnal ci diine muy bañ muy sànni doom yi ba doom yi jeex ba kim doon nàmpal ànd ak moom mu sànni ko ci biir gannaaw ba dog koo rey loolee keroog ba yonent bi def isra wal mi'raj ànd na ak jibril alayhi salaam ba mujj benn xet bu neex dikkal ko mu ne ko waa jibril xet gi mooy fu mu jóge mu ne ko lii mi ngi jóge ci bàmmeelu Maashita binti Firawna ngir muñ gum muñoon loolee kon góor ak jigéen war a bàyyi ci loolu xel mbokk suñu borom yàlla bi mu bëggee ay mbiram nag ca la wax Muusa génnal ak bani Israil ngeen dem la nga xamee ne mooy géej ca danaa leen musal Muusa woo bani Israil ñu génn ci guddik fukkeel mooy la nga xam ne mooy guddik Ashura bañ demee ba yéegi ci géej gi ci mer Rouge fi toll canal de Suez la nga xamee ne nii mooy armée Firawna gaa yi seen leen ñuy ñëw ñi àndoon ak Muusa yépp ne àdduna tukki na tey la ñuy rey ba ñu jeex firawna dajale na armée boo xam ne mat na fukk yoon armée Muusa géej gaa ngi nii Muusa ne leen déedéet yàlla ngi ànd ak man suñu borom yàlla na ko Muusa dóoral géej gi Muusa dóor géej gi yàlla xar ko fukki montagne ak ñaar ci ndox suuf gi wow koŋ mu ne ko jàllal yag bani Israil Muusa jàllam ak bani Israil bala ñoo jàll yow ndawal jullit léeg-léeg nga toll situation ci àdduna mbir yi dëgër këcc nga xalaat gauche xalaat droite situation bi ma nekk lan moo ma ci mën a génne imma ci wàllu ñàkk la wàllu feebar la wàllu prison la wàllu tumuranke la bu mu mën a doon waaye nga la waaye fàttalikul sa boroom bi nga xam ne lu mu bëgg danaan ko amul mu am looloo tax keroog Muusa bi bani Israel yëpp jaaxle mu ne ko kalla inna ma ya rabbi maa ngi ànd ak sama boroom te boroom boobu boo delloo ci moom fokk dana lay xettali loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax Muusa jàll na Firawna ñëw dugg ci géej gi géej gaa ngi def ay montagne yu ndox suñu borom yàlla dóorloo wàppi géej gi montagne yi ñëw labal Firawna ak i notable am loolee mbokk moom la ñu yàlla wax ci alquran ba baa fan yee passé benn waay bu naan nee nay ab julit la taxaw ci télévision ci télévision Sénégal di wax naan non Moussa bi muy ñëw ci dex yi foofu daa fekk rek dex gi ngiis mu jàll gannaaw bi it haute saison yi Firawna bi muy ñëw fekk na ndox mi ah dex gi daal di yéeg comme ni muy am ci dexi Fuuta yi mbokk loolu kéeféer la kéeféer gu rëy rëy la wax foofee yàlla wax ci téeréem bi lu dul benn du ñaar Moussa moo dóori géej gi mu xar kullu tawdin ka mi ngi mi ngi noonu lépp ka tawdil azim fukki yoon ak ñaar nga naan ay géej gaa fi rek nangam nangam loolu mbokk waxi yéeféer la kon nii la yàlla musala bani israil ba ñu muccee nag Moussa alayhi salaam ak bani israil gis nañu rey nañ fa firawna ak notable am ñépp lap nañu muy xéewal gu rëy xéewal gu jëkk mooy waa bani israil mucc nañ ci njaam xéewalu ñaareel yàlla alak ne firawna ma mbëru woon Moussa nag naa dine bis bi bu ñëwetee nañ ko woor sante ko yàlla jalla wa ala loolee Moussa di ko woor yeneen ci bi alei salaatu wasalaam ba mu gàddaayee ñëw Madina fekk waa yahud yi di woor mu ne li ngeen di woor mooy lan ñu ne ko mooy ashura bi Moussa doon woor ngir sante ko yàlla bi ko yàlla musulee ci firawna yonent bi ne sahaaba yi ñun ñoo gën a yey ci Moussa ci ñi ashura bi kon ñu leen nañ koy woor te it mboo ko xamal ni yow julit yaa gën a yey ci Isa ibn Maryam yaa gën a yey ci Moussa alayhi salaam bépp yonent bu yàlla wax yaa ca gën a yey ci yahudi ak nasaraan yi woote woote ñoom te safaanoo ak ñoom yaa ca gën a yey ñuy wóor la nga xam ne muy ashura ashura boobee mu am leneen lum ñuy fàttali bañ demee ba at mi yonent yàlla mujje woore sahaaba yi jàngaloon na leen ni ñii di ahlul kitaab muy yahudi ak nasaraan yi ak yéeféer yi lépp lu ñuy jëfandikoo ba ràññeeku te yéen jullit ñi safaanoo leen ak loolu jullit yow yaay kiy woote kenn wuru laa woo yow yaay ki ñu war a roy wuroo roy kenn loolee ba mu amee ñu ne ko waa mais ashura bi bu ñëwee yahudi ñoom dañ koy woor mais ñu nit dañ koy woor yonent bi alayhi salaam ne kon bu déwee nii ñun nañu woor neuf ak dix yàlla dogal déwén sa fekkewu ko looloo tax ba mbokk jullit ashura ngi nii di ñëw alxamis bii di ñëw ngalawaay ñi ngi ñaax góor ak jigéen ku ko mën na ko woor yonent bi alayhi salaam nee na soo ko wooree at mi nga génn yépp bàkkaar yi ca defoon yàlla baal na la ko loolu ñu bàyyi ci xel bu baax koo xam ne mën naa boole àllarba ja ak alxames ja woor ko loolu mooy la gën bu dee ne it jafe na ci yow fexeel alxames moom kese nga woor ko ñu bàyyi xel ñaari mbir ashura ñetti pas-pas daje na ca pas-pas ba nga xam ne nii moo ca wér mooy la yonent bi ak saxaabaam nekkoon mooy ashura bu jotee daawuñu ci def lu dul woor kese leneen lu mu mën a doon daawuñu ko ca def xamuñu ko woon daawuñu ko def moo am beneen groupe boo xam ne dañoo génn muy chia yi ngeen di dégg comme kii di Ousseynou doomu Ali sëtu yonent bi alayhi salaam dañ ko reyoon ci ashura ñoom ñu ne ashura kon bisu tiis la soo xoolee sa télévision Irak Iran ak yenn dëkk yooyu nga gis dañuy dajaloo comme ni ñuy dajaloo ci jàkka ji jël ay jaas yi di caw seen bopp di caw seeni doom deret ji baawaan ñu ne lan ndax ñu ne seeni maam ñoo ñoo reyoon sutu yeneen ki alayhi salaatu wasalaam def ko bi su tiis mbokk loolu réer la ci biir réer waaye nag am na loo xam ne ñun ñoo ko doon ne suñuy maam te suñuy maam jële ko woon it ñoom ca ay nit ñoo xam ne ay siècle lañ leen jiitu woon ñu ne bisu ashura ku ci bégal sa njaboot doo ñàkk ci at mi loolu am na xadis yi ci rot dara wiru ca looloo tax ba bu dee sénégalais dañuy togg ay cere boole caag nag kii miiri mbir yu ñuy def junniy xulwaak ñaan yi ñuy def ak askar yaak la ñuy takk ak la ñuy nangam loolee mbokk bu ñu ko doon lim tàkkusaan fi la ñuy fekk waaye yow mi am borom xel cay xellu nga la waay xamal lii bisu tamxarit lenn dong la ci diine jàngale mooy nañu woor bis ba leneen lu dul loolu aada la leneen lu dul loolu ay xalaat yu ay nit rafetlu la yonent bi xamu ko Aboubacar ko Omar xamuñu ko loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax alxames la mi ngi nii di ñëw ku ko man woor ko ku ko ku ca mën a boole àllarba ja baax na yonent yàlla Muusa moo doon sabab ba ñu war koo bëgg war koo sopp war a jéem a muñ muñ gëm muñoon waaye it fàttali ko ñu ko waroon rawatina jigéen ñu tedd ñooñu ma leen waxoon mooy yaayam ju gëm ja soxna firawna maachita boobu nga xam ne nii noonu lañ ko reye mook njabootam ci lépp dara taxul lu dul yàlla mbokk lii lépp da ngay gis na ashura dañuy fàttali loolee su ko defee ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla boole ñu ci jaamam yi muy gërëm àdduna ak alaxira yal nañu yàlla wërsëgal ñu muñ muñ go rafet fu mu ñu mën a jaarale yàlla bu ñu yàlla teg mukk ci loo xam ne nii attanuñu ko yal nañu yàlla may aafiya fi dunia wal axira yal na yàlla sopp loo ñu ngëm yàlla ca taaral ko suñuy xol yal na yàlla may ñu njaboot goo xam ne daañu sedd suñuy xol may ñu way dencante góor ak jigéen ñuy sedd suñuy xol ca boole ñoom ñoom ñépp ci àjjana كويا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين